yoon Serigne Mboup yegsi pour emploi boobu ñu mën def dama def ci sama programme ne Sénégal dañ koy six pôles de développement yoo xam ne nii dañuy fexe ba ay jakarta yi fexe ba wutal leen ko remplacé leen ko ay leen ne ci sama man-man bu ndaw def naa ko fi ngeen ñëpp xam ngeen ne joxe naa fi ay Mbàkke Tuuba ay oto ñu di ko dawal fii muy transporter ay nit ñu defar tamit mbay mi ba ngeen mën a bay bu baax yaakaar ndaw ñi bu leen defalee ay usines ngeen mën liggéey développé transport bi defalee ba nga xam ne nii am ay mbay ngeen mën a mbay bu baax jigéen ñi transporté ko léegi emploi jeex Sénégal sama programme bi ma wax mooy créer un million d'emplois par at Sénégal mën na absorber. lu ëpp loolu ndax Sénégal bu arrêté importation bi muy def installé ay usine de consommation usine de production ci pôle régional mooy Touba Mbacké ak région du Bawal def ko Sine Saloum def ko Sénégal oriental Tamba def ko Matam def ko Ziguinchor def ko li nekk Dakar moom am na ba noppi ñu consolider ko Sénégal day jëm ci kanam te Sénégal bu jëmee ci kanam. ñëpp am jàmm ñëpp am sutura maa ngi leen di gërëm leen sant di leen gërëm dem soxna Dior Mbacké ci taxawaayam bi nga xam sonn na ko bu dee ba njëkk jigéen ñi lay sonal ku bëgg a defar ku bëgg a defar ku bëgg a defar ku bëgg a defar Sénégal da ngay toppatoo diaspora bi 1700 milliards lañ ciy dugal officiel. lii dugg officieux mooy li jaarul ci transaction boobu tur mën na 3000 milliards ñooñu jàppale leen ba nga xam ne nii ku ci man si liggéey fa nga nekk di fa liggéey te bëgg a dellu si ñu defal la cadre boo xam ne nii boo ñëwee installé fi day yomb day am agence koo xam ne nii day toppatoo autour diaspora bi jàppale leen. ba nga xamee ne xaalis bi ñuy indi du ñëw mu nax ñuy delluwaat dañuy mën a toog définitivement jabal seeni rek ñu mën dem liggéey ñëwaat ba nga xam ne kenn du soxlaati dara ci biti jërë